final CNP 2021 tey jii ci samedi bi euh, di 3 euh, septembre 2022 la ñu ko joué bu zone un b bi xam ne El Hadj Gueye moom moo ko euh, dirigé xam ngeen ne daaw la lañ ko joué mu dox waroon ndox ci diggante Jaraaf ak Juboo kenn génn ci pour war a mën a représenté zone bii nii ci phase départementale yi. mbir mi nag dem na ba àgg si jàmm ba ASC Jaraaf moom mu mujjee gagné ASC Juboo ci. tiro bi fii nii ci stade bu Koungheul mu nekkoon nag ci teewaayu kilifa yu bëri bëri ñu teewaayu politiciens yi jekkoon ci parti bopp ñuy wax Pastef mais tim ancien joueurs yi xam ne ñoom la ko alaaj gay dippee woon ñoom ñëpp teewoon nañ jël ànd ceeg ki ñuy wax Saliou Ndiaye bu ONCAV ñoom Souleymane Tounkara di ancien dirigeant mais tim joueurs ku ci mel ni ñoom Demba Mbaalo ñoom Mamadou Lamine Ngom Ngom di moyes ñoom ñëpp ñëwoon nañ teew pour jëmmal am solo ci Koungheul mais tim doxoon ci ñaari équipe yu xam ne vraiment loolu rek xam naa bu ñu ci paree rek dañuy jot nañoo talal suñu micro ancien joueurs yi mais wala tim ancien euh, dirigeant yi ku ci mel ni saalu Ndiaye bi xam ne tey footballu Koungheul am na lu mu ci dox lu bëri bëri mais tim ganu El Hadj yi xam ne ñoo jokkoon Mbirkilaan Kaffrine ak feneen feneen ñëw ñi gën ci ràññee kii député Samba Ndang ñoom ñëpp jot nañoo talal seen micro pour laaj leen bés bi ak ak nu ñu kii di El Hadj Gueye nekk président jeune 1B bàyyi leen rek ñu ngeen déglu tuuti ambiance après ñu talal suñu micro ñoo ñuy xam ne ñoo nekkoon ganu El Hadj Gueye ci final bu am solo bi xam ne vainqueur bi am na 500000 vaincu bi am na 300000 cadet bi 100000 euh, ki gagné cadet bi ki ki ki xam ne moom lañ gagné am na 75000 ay médailles ak ay ballons ak yeneen i maillot yu am solo jël na ko jox ko équipe yi xam ne ñoo nekk ci jeune boobu noonu mu nekkoon ci journée bu xam ne daal jour bu am solo la ci jeune 1B. waaw ginnaaw su ma ko remercier gërëm ko gërëm aussi vraiment la délégation bi xam ne jógee dafa jógee Kaffrine jógee Guinguinéo donc ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp fekk aussi c'est vraiment seen seen coordonnateur muy Babacar Ndiaye di remercier vraiment le président de la zone 1B boo xam ne si laa bokk donc nag li mu def nii wax dëgg yàlla dama koy rafetlu en tant que ancien en tant que toujours ancien mais qui qui vit toujours dans le mouvement Parce que n'oubliez pas que je suis au niveau national. Donc, même si je suis ancien au niveau de Kungel, je suis pas ancien au niveau national. Donc, vraiment, surtout le choix qu'il a fait, c'est un choix très judicieux. Parce qu'il est parti du sommet à la base. Donc, aussi vraiment, nous nous remercier. L'appréciation que le moins d'abord, il y a d'abord le fair play. Bon, aussi vraiment Donc nous avons au terme de, de, de, de ce final-là que le gagne et vraiment de remercier le président de la zone 1B. Sincèrement parlé, il s'est dégourdi pour vraiment faire cette finale-là. Moi, je peux témoigner qu'il a tout fait, mais malheureusement, surtout, mais ce qu'il est vraiment avec les moyens de bord, vraiment l'intervention du comité directeur, je je parle sous le conduit de l'ODCAV donc ñu ñëpp jàpp nañ si mais au premier chef su baaxee moom la su bonee moom la parce que c'est le patron quoi qu'on dise on le remercie on le félicite di ko ñaanal yàlla na yàlla continuer à faire des genres de finale là. mais ngeen permettre d'abord ma nuyu gan ñi nga xam ne ñoom lañ dalal tey mu honorable député à l'Assemblée nationale dañ génn ci ay élections législatives ndaw comme ñun nekk député ñëw tey ci finale bi ñu dalal ko di ko ñaan yàlla na ko jig mu ko jàmm ba la fay dem mu jëriñ askanu Sénégal yëpp dalal aussi sur la nga xam ne moo jógee Kaffrine di doomu Ndoukoumane ñu bokk Ndoukoumane bokk région de Kaffrine ñu koy dalal fii ci ci Bambouck gërëm aussi le coordinateur départemental bu Pastef waaye gërëm suñu doyen d'âge mi nga xam ne tey le mouvement nawetaan bu yegsee fii ñoom la ak ñoom El Hadj ak ñoom Maître Sarr ñu yegg si fii mais gërëm aussi ki nga xam ne tey moo waral mboobaram muy le président El Hadj Guèye je crois que l'histoire retiendra qu'ici à Koungheul c'est la première fois qu'un président de zone a osé il a réussi Monsieur le Président Elhadj, vous ne nous avez pas déçus. En tout cas, je suis le président de l'ODECAV de Koungheul, issu de la zone 1B, nekk fa membre comité directeur, génn fa encore nekk délégué ODECAV, nekk président ODECAV mais vraiment nous sommes très contents de lui, nous sommes très contents de la zone 1B, nous sommes très contents du comité de la zone 1B. Comme l'a dit le président Zal, je crois que fàttaliwu démb ndax tey final bi bu jee ko décerner les anciens du mouvement navétane vraiment leur reconnaissance mënu di gërëm aussi gan ñi nga xam ne jógee nañ fu nekk ñoo fekk la sa tey ndax nit amul lu meg bésam kon su amee bésu màgg bii génne sa alal def ko ci say naataango fu waay nekk ci Sénégal ñoo fekkal si la dañu ne gërëm deen sant gërëm aussi honorable député ndax je crois que c'est la première sortie bu mu njëkk a def euh, bi mu nekkee député ko Koungheul kon honorable merci beaucoup ci teewaay bi nga ñëw jëmal suñu final en tant que autorité à l'Assemblée national ñu la gërëm baax dee sant dañaan li ngeen war a installer le 12 yàlla na leen jik mu tàccoo leen jàmm ba li ngeen foo war a liggéey réew mi aussi mu am njëriñ ci réew mi gërëm aussi la presse je crois que Zala di tey ku ñëwul stade mën a seetaan match yi xam li fi xew nous le devons à xibaaru Bambouck à Free Info à GBC ak rajo communautaire bu Koungheul vraiment merci encore une fois Zala di en tout cas nous nous ferons que les institutions qui sont à Koungheul muy collectivité territoriale ak le conseil départemental muy bàyyi xel la presse locale di ndax vous êtes en train d'abattre ici dans le département de Koungheul vraiment je suis très content en tant que ndax tey parrain jafe na département de Koungheul kon tey moom bu jëlee final pare ne ko def ci lim fi def yëpp ma li ma sant ko gërëm ko li nga mënul ki la ko defal da nga koy gërëm sant ko kon président El Hadj merci ginaaw ginnaaw bu ñu sant yàlla euh, di gërëm waa Koungheul ndax peccum luur bu neexee nday yaa jàpp ci mbagg ya final bi comme ni ko nit ñëpp xamee nekkoon na ñu amoon yéene def ci ci CNP bu daaw. daaw ci mois de novembre lañ ko bëggoon def waaye ay gàllankoor am ci ñu xat ci suñu tànk tubay nag ak ñi ñu àndal ku lim juum te bëgguma lim kenn waaye ñi nga xam ne tey ñoo bokk benn formation politique dama leen di sant di gërëm commencé ci nag suñu coordonnateur départemental Babacar Ndiaye liggéeyam ak taxawaayam rafet na di ci teg nag képp patriote boo xam ne ak fu mu mënta nekk moo xam biir Sénégal wala biir diaspora jël nga sa doole def ko ci mbir pour mu aboutir mais également di ñoo xam ne seen yoon nekkul ci politique mais dañoo gëm sport def na passion la mu jaral leen kenn ku ne lam ci mën mu def ko te tey ñooñu dañoo yee ñu bari bu ñu gisee tey président ODCAV taxaw bokkuñ formation politique bu ñëwee ci biir zone bi sunu SA bokkuñ formation politique ak ñeneen ak ñeneen loolu lan la tekk mooy football passion la football moyen euh, moyen d'épanouissement la mais waruñ ko def un moyen politique ñun gëmuñ loolu liñ cee def du politique moo tax ñu def ko dañ koo def pour la jeunesse de Koungheul te ñi ñi dooleel ak ñi si képp ku ci def sa alal da ko ca def pour la jeunesse de Koungheul lu tax nag ñu xalaat rendre hommage aux jeunes aux anciens du moins ndax dañ leen bëgg jàngal benn mbir nit mën na jaar ci terrain di football boole ko ak lim gëm ci àddunaam boole ko ak rêve am xeex ba réussir ko loolu lañ gëm moo tax ñu jox leen ko tey bu ñu xoolee euh, euh, docteur Mballo Gning nekk docteur tey suba bi ma yeewoo mu woo ma na ma damay bàyyi sama liggéey Dakar ñëw fekkee si ko sama xol dafa tooy ndax moom tey yàgg na football fii tey takk capitaine Diso mais bi ñu tuddee anciens yi mu ñëw exemple ci jeunesse bi ñu xam ne bi muy nekk fii di football gëm na njàngam gëm na li mu doon def ba tey mu nekk docteur mën naa ci cité ñeneen ak ñeneen docteur Babacar Sine ku lim Dioum ñoom ñëpp jaar nañ fii joué tey tey ñu nekk dey responsable dans leur vie loolu exemple ci jeunesse bi moo tax ñun nañ ci roy sukkandiku ci mais également nag ñi nga xam ne ñu ngi ci ba ñuy tout tànk ba léegi nag dañuy gunge ku lim Dioum président Ndiaye wax na léegi président Guèye ndax wax dëgg yàlla suma nekkee président ci mandat bi yaakaar naa génn ci lu bëree bëri bëri demoon naa ba zone génn sama xel mais bi ñu toogee ñu wax ñu dañoo bëggaat nekk ci donc ñoom it ñu leen di sant leen gërëm ndax bokk ngeen ci précurseurs yi nga xamante ne tey lépp loo xam ne ñu koy def ci mouvement nawetaan dooleel ngeen ñu taxawu ngeen ñu donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, ku lim juum moo tax bëgguñ tudd tur mais bépp Koungheul waa bu ci def doolem moo xam xel la moo xam dooley poos la moo xam coup téléphonique moral ñu ngi koy sant ko gërëm di gërëm na wax dëgg yàlla l'honorable député Samba Dang ndax il a un calendrier très chargé démb bi ma ko suivre euh, euh, émission Walf TV dama noon kii du ñëw mais bi ma xëy woo ko mu ne maa yoon sama xool dafa sedd mais aussi kenn du si nagay coordonnatrice départementale bu Pastef euh, Kaffrine ndax jigéen gu mën góor la jigéen gu mën góor la ma wax ci kaw jigéen gu mën góor la te sacrifice yi mu def aussi gis nañu ko donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, am nañ mbégte trop ñëw Koungheul ndaxte invitation sunu doomu ndey sunu sunu sunu rakk euh, koo xam ne yàgg nañ di liggéey depuis euh, université dans la donc dans le cadre de la coordination régionale des étudiants de Kaffrine ñu bokk nekk de membres fondateur ma jiite woon coordination bi donc bu demee tey ba bokkaat politique encore dama alhamdulilah rabil alamin rawatina ma ñëw fekk fi sama grand zal nga xam ne 2018 on était à Kolda mu yóbboon ASC Manko Birkelane pour la région de Kaffrine ñëw fekk fi aussi le doyen euh, fekk fi Babacar le grand coordonnateur donc du département de Koungheul ànd ak sama sœur la lionne du Ndoukoumane Sina Gaye ak aussi euh, honorable député Roqi Ndiaye bëggoon ñëw malheureusement mu am décès honorable député aussi Ismaïla Diallo bëggoon ñëw aussi malheureusement donc le temps n'était pas mais en tout cas tout PASTEF à commencer par le président Ousmane Sonko ak le euh, l'administrateur du parti Biram Souleye Diop le président du mouvement des cadres Bassirou Diomaye Faye ñëpp ñoo fi bëggoon ñëw donc ñëpp am nañ mbégte néew tey teew Koungheul teewal doomu Koungheul teewal waa Koungheul mais surtout teewal le président donc de la zone 1 monsieur El Hadj Guèye am nañ ci mbégte trop. j'ai été surpris pourquoi j'ai été surpris parce que li ma gis fii li ma fi dégg El Hadj mosu ko jooytu bu jooytu woon ne ñun exemple depuis daa ba léegi ñu ngi bëgg parrain amuñ ko immédiatement on trouve un parrain Sina Gueye day nekk mbareen immédiatement mais ko jooytu pour wan leen ne moom jàmbaar la. li muy métti métti métti moom Babacar ñu ngi ne mukk noppi musuñ ko jooytu fen et ko jooytoon yàlla xam na ne ko ñu trouvé parrain bu yàgg pour wan leen ne donc ñoom Koungheul lim leen jaral parce que mën naa am bu ñu ko joytu woon ñeneen dégg ko mu nekk loo xam ne day ñekk gàkk-gàkk ci waa Koungheul moo tax ñu ñoom géré ko en tant que Koungheul le euh, l'honneur de Koungheul donc am nañ ci mbégte trop kontaan nañ ci xam nañ ne c'est des c'est des c'est des gestionnaires un gestionnaire c'est celui qui trouve des solutions ils ont trouvé des solutions par rapport à un problème et alhamdulilah rabbil alamin donc ñu ngi Euh, di sant monsieur El Hadj Gueye président de la zone 1B et vraiment organisateur de la grande finale di sant non invités euh, monsieur Samba Dang honorable député de Yewwi Askan Wi Birkilane ak madame euh, Sina di coordinatrice départementale bu Kaffrine di sant président de la de l'ODECAV monsieur Zal Ndiaye aussi di ko sant moom mi nga xam ne mooy sunu représentant ORCAV Euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte bu baax a baax a baax ci réussite bi nga xam ne nii euh, final bi am na ko donc euh, ñu ne woon ne du am wala mënu ko donc yaakaar naa ne la réponse est là et donc ñu ngi ciy sant ñëpp di ci gërëm ñëpp surtout la jeunesse de Koungheul surtout n'est-ce pas les responsables de Koungheul ñi nga xam ne nii peut-être c'est des cadres ñu ngi à Dakar et autres ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax baax a baax ci bés bi nga xam ne nii réussir nañ ko di sant bi nga xam ne nii ñu ngi au niveau national mais surtout dans la diaspora ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax encore une fois seen taxawaay ci réussite événement bi nii jërëjëf. aleykum mbokk waa Koungheul asalaamaaleykum yéen mbokk journaliste yi xanaa di waxte rek kontante ak mbégte lañ am tey teew fii ci Kaffrine wuyu si sunu frère di El Hadj Gueye wuyu si suñu frère di Babacar Ndiaye di coordonnateur bu Pastef bu Kaffrine di wax ne macha allah final bi am na solo. malgré état wu terrain bi yéen yéen ko gis mais gis nañ fi jeu bu rafet kon nag dafa dama jàpp ne ñun njiitu Sénégal war nañ xoolaat bu baax jël seeni effort def ko ci football bi jàppale jeunesse bi nga xamante ne bëgg nañ te am nañ mën-mën pour jouer kon nag nañ leen jàppale bu baax a baax di wax suñu frère El vraiment kontaan nañ ci yow gis nañ aussi li nga def surtout ce choix bi nga def pour que euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon fii ci football bi nga ñëw pour euh, ra kiyal leen delloo leen jukkal dafa nekk lu am solo di wax ne nii la rek ndaw moom bu nekkee ci dëkk dafay dem ci li nga xamante ne dafay euh, yóbbu dëkkam ci kanam te football bii nii aussi liy jëmale réew kalam la rawatina fii ci diwaanu Koungheul xam nañ ne fii dañoo gëm nawetaan dañoo bëgg football kon nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm ñi nga xamante ne ñoom nañu àndal muy euh, l'honorable député Samba Dang ak ñi nga xamante ne moom la la àndal fii di remercier président ODCAV bi nekk fii nii ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm vraiment merci beaucoup.